na nongu ci kaw coof yeeg seen ñoom loolee jafe na ci réew mi mbaadu dañoo jaay géej gi yéen kaay gi xëy di ñu xibara naan ñu en tout cas li am ba des sàll jën jamono ji mën nañoo wax ne gisatuñu ko wala cher na ba jéggi dayo wala yéen xeetu jën yi maanaam kenn gisu ko waaye nag boo ci toftalee li nga xam ne mooy ñàkkuk soble gi loolee musiba bu kumbala koo xam ne maara day taal yi yéen gi di réew mi ko di jaay naan bërki dé moo njaay déggoon ngeen ñi nga xam ne ñooy waa UNESCO ñu jël ceebu jën élevé ko def ko patrimoine mondial waaye nag ñi nga xam ne seen loxo jutul seen ginnaaw loole nag gént la si ñooma ah. ndax nag ceebu jën moom du da ngay jóg rek togg ceebu jën bu baax de man ngaa togg ceebu jën nag waaye turu ceebu jën rek waaye ceebu jën dëggantaana ah. loolee jafe na ci réew mi wala ñenn ñi ñoo koy lekk ñenn ñi lekkatuñu ko yéene kaay gi nag nee na ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñi nga xam ne maanaam ay jàmbaar lañ ci Sénégal jigéeni Sénégal ay jàmbaar laña ah. ñoom ñi nga xam ne nag ñooy dem ci marché yi jamono ji sonn nañ ba maara day talee moo tax nag ñoom ñoo ngi yuuxu wàllu au secours yuuxu wàllu nag ngir nag Macky Sall ci boobu nekk mën leen a génnee si jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ndax jigéen ñi nag ñoo gën a xam jafe ndax ñoom ñi nga xam ne ñooy dem ci marché yi dañuy dem ci marché yi maanaam lépp ay cher am na loo xam ne jigéen ñi dañ koy xëy wër ko ci marché bi ba maara détaillé maanaam duñu ko sax gis yéene kaay gi di la turbine xëy duñu xibaar naan ñu nag président Macky Sall am na lenn loo xam ne diggoon na ko askanu Sénégal waaye nag phrasali xëdd na maanaam Macky Sall dige moom def ko loolee dafa mel na daf ci am problème ndax lu jëm ci wàllum wàññi dund gi yombal dund gi Sénégal Sénégal yi di dund correctement maanaam dund goo xam ne gu bakkane gu baax lay doon loolee la Macky Sall digoon askanu Sénégal waaye yéen ñëpp xam ngeen ne amul lenn loo xam ne Macky Sall jëfe na ko si Macky Sall fii la waxoon ne dinañu andi ay réforme ci institution yi waaye na ba léegi France liq dina Macky Sall moo fi waxoon ne képp ko xam ne dénk nañ la alalu réew mi maanaam dinañu ko sàmm leeral lépp waaye tamit amul lenn loo xam ne leeral nañ ko ci alalu réew mi état de droit bokkoon na ci li Macky Sall Sall moo ñu ko digoon waaye nag yéen ñëpp xam ngeen ne Sénégal moom état de droit ci boppam amu fii yéen a kaay gi de la Quotidien xëy ñu xibaar naan ñu Tuuba nag ñoom ñoo ngi waajal màggal gi bu baax a baax ndax ñi nga xam ne ñooy waa police ñoom nag ñoo ngi def ay opération moo tax lu toll si juróom fukk ak benn ñoo xam ne njortu nañu ne Samba booy la ñu teg na ñu leen loxo am na fukk ak ñeenti oto yoo xam ne méngoowul ak yoon teg nañu ko loxo lu jëm ci wàllum inondation yi jamono ji gaayaa nga sa sa Tuuba yéen a kaay gi di ñu xëy fekk fa secteur de l'emploi nee na nag ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñoom dañoo yàgg ŋàññi li nga xam ne mooy fichier électoral bi waaye nag bi élection législative bi jàllee ba léegi kenn déggul opposition bi muy wax ci wàllu fichier électoral te nag buñ leen mosa dóor ba dañu fii nekk di ŋàññi fichier électoral bi waaye nag fichier électoral bi nga xam ne opposition bi ñoom doon nañu ko ŋàññee waaye si la ñu amee lu toll ci quatre-vingt-deux députés gagné ci nag ay grandes villes yu bare bare bare bare kon nag ñi nga xam ne ñooy opposition bi dañoo war a nag bàyyi seen caaxaan yee ak fiche électorale bi nga xam ne moom la ñuy taafantaloo Sénégal il faut ñu xam ne ci déndu Afrique bokk nañ si ñuy gën a leerle gën a fiable ak fiche électorale kaddu yi Pape Modou Fall le directeur de l'emploi yéen a kaay gi du l'observateur ñu fekk fa Lamine Thiam bu PDS nee na am na député PDS yu bare bari yoo xam ne nguur gi ñoo ngi leen di woo di leen proposer ay millions ngir ñu fekk benn bokk yaakaar yéen a kaay gi xëy di ñu xibaar naan waa lu jëm ci wàllum kër yi maal ak teraanga jullewul ji Macky Sall doon wax waaye nag mujj ak lu jëm ci wàllum xeex gera ndax nag lu jëm ci wàllum kër yi mennoom Karim Wade Tahibou Ndiaye ak Abdoulaye Baldé ñeneen ñi seen ginnaaw bandang am na sax ñu si fekk Macky Sall yéene kaay gi du l'observateur a ah nee na nag lawoon ca assemblée nationale wón ni na ndax nag Benno Bokk Yaakaar ah seen majorité bii nga xamante ni moom la ñu ama ah dafa tax suufa moo tax député yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar am nañu ay moyens yoo xam ne mën nañu koo teg gars yi si ay pression waaye tamit dinañu mën a am ay moyens ngir di négocier yéene kaay gi xëy di ñu xibaar naa ñu source a ñu koy fekk fa Momar Dieng di analyse politique nee a jël Pape Diop yóbbu ko Assemblée nationale waaye su ko defee loolee musiba bu kumba gu rëy a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na bu ñu waxantee ci lu jëm ci activité politique dafa raw gars yi ak bii nga xam ne ma koy waajal yéen a kaay gi a xëy dañu xibaar lu doy dafa am benn ministre d'État bu doon jàppante ak policier ndax ministre d'État bii di Abdourahmane Bilal Daabo moom nag dafa jaaroon sens interdit policier bi na ko taxawal wàññeekul yow waroo jaar sens interdit Abdourahmane Daabo ministre bi wax sëfooram bi na ko bul buuse centimètre Abdourahmane daa di wax policier bi naka yow est ce que xam nga man maay kana loolee nag da nga koo war a jéem a xam ngir sa information man la ministre d'état Abdourahmane Daabo policier bi na ko ay après moom ministre bi na ko gis nga commissaire ba commandant ñoom ñëpp ñoo ma xam a <laughs> benn mairie boo xam ne jot na fonds de moo tax mairie yi sonn nañ ba maara de taale yéen kaay gi di libération nee na askanu senegal kay ñoo sonn rawatina ñi nga xam ne ñoo toll si jëndum ciment tonub ciment bi jamono ji ma ngi ci soixante-dix mille dafa yokk ba maara de taale yéen kaay gi di alerte nee na Mamadou Goumbala Maimouna Ndour fay yóbbu na ko fa mbax na doone benn ndax nag journaliste bu jigéen bii di Maimouna Ndour Faye dafa nag invité woon Mamadou Goumbala sa telem boobee waaye nag Maimouna Ndour dafa laaj Mamadou Goumbala waaye yow gumbala xanaa yow fu ne jaar nga fa ci lu jëm ci wàllum politique ci parti politique yi gumbala daa di koy tontu na ko yow may muuna nduur faye yow sëy nga ñetti yoon tas da ngaa sëy tas sëyaat tas sëyaat tasa loole nag moo metti may muuna nduur fay nee na loole gumbala wax dëgg te nag dinaa ko porter plainte mu indi ci ay leeral yéen kaay gi da Les Échos Tafa Gueye ak Giri doo juboo nañu waaye nag Tafa Gueye nee na ko Giri Bordeaux sa combat ak Ama Balde fexe ko nag daane naka il faut nga wut ab entraîneur physique bu baax